ñi tudde seen bopp ni ñoom ay kilifa lañu nañu bàyyi jël seen santu maam yi di ko xeexe bëgg cee yóbbaale taalibe yi ku ci am sa problème personnel nga régler ko personnellement te bañ koo indi ci pénc mi di ci yóbbaale taalibe yi Cheikh Omar Diagne dafay wax lu gën a goraaw nit ku taxaw xool ku ñuy tuumaal te yàlla wax la mu wax ci ku ñuy tuumaal rawatina mu nekk sa mbokkum jullit yan taxawaay nga ci war a am ak ban bët nga ko war a xoole ak yan nopp nga war di dégloo nit taxaw na fii ñu naan président Ousmane Sonko moo def defut askan bi di jóg di ko xeexal ay bakkan di nit taxaw fii jiiñ ko ni vulgaire violeur publiquement Sénégal gépp di dégg nga ni président Ousmane Sonko vulgaire violeur loolu lan la mu nekk wax joo xamante ni fekk demoo ca ka nga woon wax jooju wax ko ko sukk ci ay tànkam tuub jéggalu ko mu jëggal la wax ji dina la topp ba yowmal xiyam loolu amul ku koy dindi dafa wax yàlla yàlla la de da nga tooñ da tooñ jàmburub yàlla te dama gëm ni man Sénégal gi dama gëm ni man Sénégal gii néew nañu gën a sori président Ousmane Sonko ci yàlla ndax nit ku nangoo def sacrifice bi mu def ci réew mi néew na fi ci jamono bii seen problème nag parce que dama gis ni les mêmes personnes yi doon acharné wu ci kaw président Ousmane Sonko ces mêmes person nooy acharné wu ci kaw Cheikh Omar Diagne parce que lan la wax mais dem leen ngeen tontu ko ci xam-xam Cheikh Omar Diagne mosul yëkkati kaddu di saaga jëmale ci mag ñi te pourtant am nañu bokk ci biir këri kilifa moo xam nga sant si wala nga sant Mbàkke wala nga sant Ñas yëkkati ay kaddu yu ñaaw jëmee ko ci mag ñi Ahmed Khalifa Ñas lu mu fi waxul egg na ba ci ni suñu diine ji ci réew mi tubaab yi ñoo ñu ko imposé loolu kan moo kenn waxu ci quoi kenn tontuwu ci parce que dafa sant ñas parce que da bokk parce que moom xëy na dafa am maam dafa am ñu koy topp fii nul n'est parfait fii yàlla kese moom moo parfait téere bi rek téere bi yàlla bi muy alxuraan rek moom moo parfait yenent bi dafa daan dajale saxaaba yi yëkkati kàddu di wax ñu ni ko ndax wax ji ngay wax sa waxi bopp la wala waxi suñu borom la ndax bu dee sa waxi bopp la kat dañ ciy discuter waaye bu dee waxi yàlla la ñun amuñu ci kàddu ndigal jëfe chaque jour nit ñi ñu ngi wax di ji nga jëmale ci yonent bi chaque jour mag ñi nga xamante ne mais imam Malik ñun mag ñi ci senegal yëpp ci imam Malik la ñuy roy te pourtant imam Malik boobu am na ñoo xam ñu ngi taxaw di ko ji ni gëmuñu ko. ñeneen di roy keneen ñeneen di keneen te pourtant lépp ci diine ji la kenn ku ci nekk nanga nga nangul sa morom fii la ñu fi toog Macky Sall di toroxal askan bi te lu jiitu toroxal askan bi Macky Sall fii la fi tubaab bi saaga yonent bi Macky Sall dem ni je suis Charlie dem di soutenir ñi doon saaga yonent bi te pourtant bi mu dellusee dañ ko lalal tapis rouge bu doon jamonoy maam Abdoulaye bu ko recevoir yi dina ko wax yu mën a dégg wala sax du ko recevoir Macky Sall taxaw fii ñu fal ko en 2012 mu taxaw ni les les marabouts sont des citoyens ordinaires amuñu benn statut spécial bu ñu leen di jox te pourtant Macky Sall ngeen jëloon parce que lan la juste da ngeen a nekk ci système bi da ngeen bokk ci biir système bi yi fi daan xew jeex na. ay événement wu màggal wala ay événement wu gàmmu ñu ñëw yëkkati ay maletu ay millions man gis naa fi ñoo xamante ni chaque gàmmu dañoo yëkkati ay maletu cinquante million jox leen ko xol ñu naj ko di ci cof-cofal ña ni ko war a sédd ñu ñu leen di cof-cofal ku ne ñu cofal la la ci def ñu téye ko ja ne mugg jàpp seen jàmbur ma gis fi ay magasin yoo xamante ni xolal dañ leen di vider ndax ay produits yu périmé mu ci ceeb ak lu mu ci mën di am vider ko yépp ko ci ay camion dem gasal ko ay kàmb du ko suul te jamono boobu askan boo xamante ni tey ji yow sa maam rek la ñu gëm sa maam rek la ñu yaakaar amuñu luñ lekk amuñu lu ñu naan dama ni lobby yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon parce que gis ngeen ni yéen amu leen benn pression boo leen mën a am jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec son premier ministre amu leen benn pression ba leen mën a yëkkati teg leen ko ndax ñoom lijjanti wuñ pression parce que bi ñu nekkee ci jafe-jafe yéen ñëpp da ngeen a seetaan leen